baax maa ngi ah, nuyu ah, imaam nga xëyee tey euh, benn contribution. waaw euh, coow a ciy xaw a am tuuti. ndax ñenn ñaa ngi naan sax est-ce que kàddu yi nga yëkkati ci biir contribution bi wax ji jëmul ci Aliou sàll ci mbirum troisième mandat ak euh, frère gi di président de la Macky Sall ba sax maanaam kilifa gi mu sàkkoon ay ñaan ci mbirum ñetteel mandat boogu noonu daf ko gàntal imaam. waaw euh, je crois que euh, ni ma ko waxee ci euh, poste bi dama doon jéem a feeñal ne Sénégal fi mu nekk nii toll na foo xam ni li ñu soxla mooy ay nit ñuy politique ndax politique mënta ñàkk ci réew ak ñoo xam ni ñoo yore réew ñu di déglu askan bi ak di leen proposer ay xalaat ak ay programme yoo xam ni ñëpp danañ ci gis seen bopp ñu koy wax intérêt am amaa nag léegi bëgg làqotoo euh, waasoo walla gox bi nga nekk euh, wala diine ji nga bokk euh, te yow askan bi seeni soxla yitteelu la da nga bëgg ñu xoolee la bët boobu loolu Sénégal soxla ko fi mu nekk nii moo tax man maa ngi rafetlu lool euh, suñu sëriñ boobu euh, le fait que mu gàntal euh, ñaan boobu ndax moom xam na réew mi fi mu nekk nii du loolu la ñuy xaar moo tax ma tuddee ko articulation dangereuse parce que ñiy def politique daanaka du ñu seexlu dara muy diine muy leneen diine dafa am ñoo xam ne ñoo koy waxal kon ci ñooñu la ñu bëgg a jaar. te ñu di waxal diine ñoom tam diine dafa leen tënk ci li ñuy wax maslaha ci droit islamique mooy lent république kon ñoom mën a nangu euh, kuy politique sa politique nga bëgg làqatoo euh, kilifa diine yooyu euh, pour di def loo xam ni mën na sax ni njaaxum ci réew mi kon mën nañ jàpp ni imam moom jugul ci position am à que troisième mandat moom jàppul ni moom kii di njiitu réew bi war na ko mën a am ci ma sa jóg parce que ni ma la ko waxee wala ma waxoon ko foofu ci kenn ci yéen ku ma euh, doon laaj foofu euh, ne mbiru troisième mandat pour man euh, du rek sax affaire ay lu ñu xaatim ci këyit li ñu xaatim ci këyit sax leer na mais li koy gën a firndeel rek mooy ki nga xam bokk na ci ñu gën a nekk kanfoore ci affaire constitution te féete tey ji ak Macky Sall muy professeur Madior ñëpp mën nañu xool vidéo yi ni mu leerale woon ba mu leer naññ ne li ñu xaatim ni ñu ko war a déggee mooy ne ñaari mandat la kon moo tax ma ne la woon li ci des nekk du sax mbirum lu ñu xaatim ci kayit yi waaye mbirum euh, wormal askan bi bëgg jàmm ci askan bi bañ fee yëkkati lenn loo xam ni fitna lay jur ak tamit sàmm sa kaddu euh, ku xool vaar yi nga gis président Macky Sall li mu ci wax ñoom dañuy turé ak ñeneen ak ñeneen bi nga xam ni pour man wax boobu mu faral ko Sénégal fi mu nekk leneen lañu ñuy mooy faj soxla jeunes yi di dee ci ndox mi ak yeneen ak yeneen euh, que di benn waay bëgg euh, toog ci nguur gi ba faw wala toog ci ba mu neex ko doo ko jox keneen. faj soxlay jeunesse bi euh, moom nga tudd léegi ci laay dugg ndax gis nga coowal émigration irrégulière gi euh, ba yéen a ngi gis récemment sax ñenn ñi nga xamante ne sax ñu ngi bitim réew waxuma la ñuy demagum euh, képp ku fa nekk ci situation irrégulière dañ la nar a delloo si kon problème de réinsertion tamit nar na posé wu mais d' abord imam yow ban jàngat nga def ci immigration clandestine bi balaa ñoo jublu ci ay xalaat yoo xam ne mën na tukkee ci yow mu di solution ci situation bi. mooy. du ma waxee comme ñi nga xam ni euh, dañuy wut politique euh, di wut nguur euh, nga xam ni lu ñu wax rek pour yëngal nit ñi dañ koy wax donte woon sax xam nañ ne bu ñu yoroon nguur du yombee noonu ak ñu nekk ci nguur nga xam ne ñoom it duñ bëgg a wax dara luy wane ni ñoom rek mënuñu lijjanti yëpp yi man am naa une troisième voie troisième voie boobu c'est la voie de l'humilité et de la concertation pour man ñu woyof toll Euh, te ubbeeku te woote waxtaan boo xam ni réew mi ñëpp a koy séq euh, képp ku am xam-xam ci wàll bi ñu soxla euh, ñu woo la te duñ ko teg ci wàllu politique waaye dañ koy teg rek ci li réew mi soxla bu ko defee ñu waxtaane ko ñëpp xam nañ ni immigration irrégulière bi ñuy wax du lu woyof du loo xam ne ruq la boo xam ne da koy dugg rek lijjanti ko nu mu la neexee ndax mbirum xëy la mbirum famille la mbirum budget la donc euh, secteur yëpp ko war a waxtaanee mbirum napp bi la euh, dafa mel ne doxatul trop noonu ak tamit euh, extérieur xale yi dañuy waxante ay information naan leen ñëw leen tubaab yi léegi ay màgget lañu kenn nekkatul ci tool yi Covid bi faat na ñu bëri si ñoom kon na ngeen fexe ba ñëw rek bu ngeen ñëwee di ngeen am liggéey kon yooyu yëpp noonu dafa laaj waxtaane même les plus grands diplomates yi Sénégal am parce lu ñu ci mën joxee seen xalaat lu jëm ci affaire wutal xale yi xëy. loolu du waa gouvernement bi rek ñoo ko xam am na fi ñu nekk ñoo xam ne dañoo am expérience ci affaire euh, PME ay les petites entreprises nga xam ne ñoom ñooy joxe liggéey liggéey bu état bi moo koy joxe quelques fonctionnaires la mën a jël loolu yëpp laaj na sax assise nationale de la jeunesse mais fi mu nekk nii maa ngi ci profité sax waxaale euh, xale yu góor yi ak waxambaane yi pour man fi mu nekk nii dañ leen a dañ leen a fi mu nekk nii politique féministe ah ministère de la famille xaalis bi ñuy def yëpp actuellement ci affaire leadership des femmes canadiens yi français yi européens yi actuellement jigéen ñi rek lañuy ñuy financé ma kenn waru leen jàppale mais loolu yëpp ay déséquilibre lay créé kon fi mu nekk nii dañu war a gën a bàyyi xel yi les jeunes nga xam ni eh, ñoom dañu war a wut am seen njaboot taxawu seen njaboot nekk soutien de famille bu ñu gis ne amatuñ dara kenn faalew leen ñu ne kon xaaral ma jël gaal suma ma tenté chance su ma rëccee danaa mën a am loo xam ni danaa ci mën a tekki toppatoo ci sama njaboot ak sama waajur kon waxtaan bu yaatu laaj. ku ku yaakaar ne am nga ci benn solution recette euh, miracle euh, yaa ngi nax nit ñi ndax jàppoo ni pour ñu tëj chapitre boobu ñii ne buntu entrepreneuriat mën na doon pexe ci jeunes yi wala yow da ngay incriminer état jàpp ne moom mooy le seul responsable de la situation de ces jeunes. waaw xam nga xam nga moom tout le temps dañu war a wax état parce que effectivement état euh, moo moo moo njabootu ñëpp kon effectivement bu amee ku amul foo fajoo amoo foo jàngee buñ ne bëggee jaay doole amul sécurité bu la mën a dimbali euh, boo bëggee tukki euh, duñ la jox kayit loolu yëpp état bi moo ci responsable parce que boo ko bëggee defal sa bopp tey non seulement doo ko mën soo ko defee nu jaaduwul état ñëw la waroo ko defee nii parce que léegi lii la état bi état mooy responsable euh, politique publique yëpp rawatina ñoo xam ne dañuy xëccoo pour yore état fu ne ñu jaar fak nit ñi damay jaamu seen soxla nangam ak nangam kon état mooy premier responsable noonu la ko constitution bi waxee. léegi nag euh, mais état li mu war a def ci wàllu liggéey réew yi nga xam ne ñoo gën a organisé gën a dimbali seen njaboot ci wàllu liggéey lu mel ne ay ay Allemagne lu mel ne yeneen dëkk yu nga xam ni daal ci wàllu chômage lu tuuti la dañu war a inspiré wu ci réew yu mel noonu mais di nga gis ne état bi dafay organiser rek ba pare créer cadre boo xam ni day permettre entreprise yi mën na développer bu baax secteur privé bi quoi dooleel ko bu baax ci alal formation euh, tëral ay xaatim yoo xam ne day tax ñu mën a jël xale yi euh, former leen ci ay métiers dimbali leen ci ñu xam yan métier la réew mi soxla ak tam ñu bëgg a dem bitim réew ñu jàppale leen. donc loolu mooy ci li nga xam ne ci dañ war a xalaat pour que xale yi am xëy euh, waaye du question rek jàpp ne état bi mooy jox ñëpp liggéey donc man du ma incliné état bi donte woon état bi politique yi mu def depuis indépendance yi ba léegi ci ñàkk a dooleel secteur privé bi. ñàkk dooleel dëgg-dëgg affaire euh, financé xale yi former leen euh, identifier euh, li ñu war a liggéeyee loolu moom su fekk du rek gouvernement Macky Sall loolu depuis ni ma la ko waxee depuis indépendance bi am nañ fa ay problème yu sérieux imaam ñetteelu tomb euh, laaj bi dañuy waxtaanee lu jëm ci gouvernement Sénégal ndax gis nañ mardi gi nu weesu ñu tàmbalee euh, mode de communication gu bees ci seen doxalin nee nañ jubluwaay bi mooy gën a indi transparence ci li nga xamante ni moom la askan wi sant ci kenn ku ne ci ñoom ci ministre yi euh, département bi nga féete yow noo jàngatee nouveau mode de communication googu. ci principe bi mun naa wax ne lu rafet la. Euh, lu fi manqué woon la parce que maa ngi fàttaliku euh, gouvernement bi ñoom léeg ñu ne kenn ci mbir yu doy waar yuy xew ci askan bi fii euh, wala nga gis président ci boppam bu ciy wax rek pitim réew la ciy waxee ah bu demee foofu ay jàmbur laaj ko ci réew mi mu doog a tontu comme surtout bu ñu demee France kon gëj nañu am gouvernement boo xam ne day wax ak askan bi wala ñu am ay milices yuy tontonte fii ci médias yeeg yooyu. pour man loolu rafetul ah ministre waroon nekk comme benn waay boo xam dem ci média yi di xuloo rek fu ne nga tontu fee dem média bee wax fee bu ñu waxee nga ne da ngeen a xamul su ngeen xamoon nangam nangam mais gouvernement suñu xamul rek dañ ñoo xamalul kon nag loolu du wax kon nag c'est important gouvernement am une communication euh, ci dossiers yi nga xam ne yëpp dañ cee war a wax maintenant nag mu def ne li ñu def keroog nii ah man de li ma si jaaxal mooy man yaakaar naa ni nit ñu bëri ñooñu. ci euh, benn table pour conférence euh, dafay diis ba pare nit ñi du ñu am temps toog laaj li ñu war a laaj ñaareel ba mooy une fois par quinze jours benn Abdallah Dionne waxoon na fii assemblée nationale en tant que premier ministre chaque mois dinaa fi ñëw benn yoon wax ak yéen ci budget bi fu mu toll ak politique publique yi foog naa benn yoon la ko def wala sax mosu ko def dama bëri ay voyage rek dama nangam nangam moo tax man gis naa ni format bi dafa nar a diis parce que quinze jours dafa gaaw ñaari semaine ministre bu waree dem sur le terrain war a voyager war a discuter ak secteurs yi muy gérer euh, léeg-léeg président woolu ko est ce que loolu dinañ mën a supporter rythme euh, une fois par quinze jours donc euh, man daal je pense nañ def formule boo xam ni boo woyof lay doon mais te ñu respecté ko mais c' est nécessaire que gouvernement bi di wax ak askan bi ñi yore xibaar dem fa mun a laajte.